ñu nag en tant que femme en tant que jigéen simplement li nga xamante ni dafa xew daf ñoo intéressé te dañ cee bokk parce que bu ñu wooyee xale yi ci xeex suñuy doom ñooy wuy ji bu ñu wooyee xale yi ci combat suñu waa kër yi am na jigéen ñoo xam ni sax bu ñu wootee dañuy wuy kon day dafay jot bu dëkk bi tollee fii ñu jigéen ñi ñu sentir concerné ñu ñoo wax au nom des femmes li ñuy wax nag ci ñetti moo la mooy li xew ci réew mi fi ñu toll ci jamono ji nga xam ni des problèmes personnels mais crypto personnel moom la ñuy jël def ko un problème d'état il est temps que ça s'arrête il est temps ñu distinguer wala ñu ràññi problème yi nga xamante ni c'est essentiellement ay problèmes économiques ay problème mu njaboot yi ay problème mu chômage ay problème mu emploi ñu teg ko ci table bi woo population bi loolu on peut être d'accord ci démarche bi mais quand il s'agit particulièrement ay jafe-jafe yoo xamante ni yow yaa ko def tooñ sa moroom muy un problème crypto personnel et privé day jafe ñu bëggoo porteloo askan bi ba pare bëgg a génne askan bi ñun jigéen ñi nag dootuñu ko nangu en réalité dootuñu nangu nga ñëw jël sa kàddu jëmale ko sa moroomu sénégalais suba kooku porté la plainte nga bëgg ni jigéen ñi xale yi gën xeex ndax plainte buuru am loolu loolu du ko nangu parce que en réalité moom moo wax loo boppam àbbul gémmiñ àbbul micro mais moo wax xalaatam on est dans un droit un état de droit on est en démocratie xëyee nga jël sa position wax ko ñu woole ni la ñoo indi preuve te la nga wax dëgg yàlla nag loolu suñu yoonu xale yi nekku ñi yoonu état nekku ci yoonu république nekku ci kon nag cette question encore une fois c'est la question de trop qui fait de sorte que c'est la question de trop qui fait de sorte que ñun jigéen ñi on dit non il faut que ça s'arrête de vouloir tout temps génn jigéen ñi génn xale yi ñëw leen ngeen xeex loolu il faut que ça s'arrête dans sénégalais comme sénégalais ils n'ont qu'à aller devant la juridiction ñu defal seen bopp yi wax ji ne ki nga toog mu woon na la dama wuyu ko boo demee ngeen wax nga jox ko nga am droit ñu wax ko mais loolu mais ni population bi gën leen xeex te nga toog loolu kenn doon ko fi am donc il faut que ça s'arrête ñun jigéen ñi nag yàlla moo ñu may ñuy jur macha allah dañuy jur ndax loolu lañu suñu borom jagale. mais du ñu juum ñu rey ñu ba pare ñu rey ba pare ñu leen di juraat xalaat ko ñu ko defee on n'est pas là pour di juum ñuy rey di ñu juumloowaat c'est fini loolu ñu ko ñu juum ñii ñu gis suñu doom yi ñoom ñu dund ñii bëgg ñu ñu si pour ñu juum ñuy rey